سن لخي شكوى على النبي وعليهم اجمعين سلام ربنا جاي سنت يالا بو باخ دي يولي تي النبي صلى الله عليه وسلم من سما كادو موي سنت رك جيمي وات كو سي زاك مباو اك ليكو وور يب نده باما في يالا اندي با تاي سرين بي amul lenn loo xam ne ñi ngi ko fi woote ci liggéey Cheikh aji Hadji bi te duñ ko ànd ak ñun su burdu bi jotee fii ñu toog nii fukki fan yëpp fii lañ koy toog guddi gune dinañ fi nekk ba jëm minuit wi heure jàpp deux heures te jigéen ñi ak góor ñi duñu tàyyi saa su ne terrain bi di gën di fees ba keroog bis bi ñuy tëj day mel ni ñun jour boobu la ñuy gàmm ñu seedal la ko at wu ne dinañ fi taxawal gàmmu boo xam ne tafsir Abdourahmane Gueye ak Sidi Ahmed Mbaye ñoo koy taxaw bu ñëwee lii rek lañ ciy def bu gàmmu Tiwaawan ñëwee nii rek la ñuy def bu ziar général ñëwee nii rek lañ lépp loo xam ne daal ñi ngi wax ne lii war la jëm Tiwaawan nii rek lañuy ñuy def li ma ko waxee woon ci ci bëccëg lii yaakaar wuñ ko woon nii aljuma dañoo julli rek ma ni mag yi man delib góor gi imam sàmb ce grande mosquée de Dakar defoon rafetlu naa ko lool te bëgg naa ko cee toppandoo ma bëgg yéen ñëpp ngeen ñu ànd koog man aljuma kuy ñëw indil 1000 francs baloo am ñu dajale ko jébbal ko Cheikh Sidi Hadji Malick xale yi ñëwaat barki démb na ma jàllaleel benn vidéo ndax ngi dëkk ci zag bi te yëguñu ko loolu di law ba sëriñ Fata Sarr mi nga xam ne lii ñu nekk sama kilifa la ci. ndax moo jàppoon ci sama loxo yóbbu ba ci sëriñ Abdou Aziz Al Amin wax ko sama taxawaay ne ko ñaanal ko sëriñ bi ñaan ne kii duma ko yem ci ñaan dama koy gën a encouragé dooleel ko yëkkati ijaaza defal ñu keroog bañ ko woowee moom it mu rafetlu ko moo woo waa jamaatu nur ba sëriñ maam njóogu si woowal ma boppam xamal ma ni yow mii lañ fi yabal nga ñëw a ah ma ne ko loolu de yaakaaruñu woon sax eh, séentuñ ci woon loo xam ne dinañ ci seetu jërëjëf Sidi Hadj waaye bu ngeen ñu ko mayee dina nekk lu ñu gën a mu ne ma kon Serigne Mansour Niang dina fa ñëw ak Oustaz Massila Kane Imam Cheikh Ahmed Tidiane Guèye li muy nekk sama kilifa yëpp wowuma ko yàlla xam na moom it message bi rek la gis tey jii mu woo ma ne ma maa ngi ñëw fekkee si ko kon nag suñu génnee nii xadara bi tamit sañ Habib moo ko sàkku ne lañ ko génne ñu yaatal ko wane ne lii tey lu rëy la ci ñun. comme moom it nga ñaanal ko baax naa dafa tuq si rek ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi dañu jàppale ci bayaan bi dañu jàppale ci jumaa gi dañu jàppale ci burdu yi ak lépp loo xam ne ñun ko fi def ñëw rek toog ci roxam ñu seede la ko te mënoon na koo rek na boroom xam-xam la te suñu kilifa waaye dafa ñëw rek wane ni samay rakk lépp lu ñu ne dinaa ko ànd ak ñoom góor gii rek di imaam Ismaïla sàmm ñu sant ko gërëm ko ndax ñun mooy suñu baay fii di suñu lépp ñu def ko muy suñu lépp gàmm gi ñu def moom laa def muy coordinateur bi lii tamit keroog ba mu ñëwee damaa joxe numéro ne ku ko lu waaye di joxe na ko ci numéro ba pare dog ko ne ko dinaa la tegaat coono fan yi ah, yow laa wóoluwuma sama bopp ci xaalis yow laa gën a wóolu sama bopp ci xaalis moo tax lépp lu ci nit di jaare sa numéro laa joxe mu daal ma ah aw ma jot bi waaye boo ma ko tegee ma nangu ko boobu ba tey mu ne ci dang-dangi lépp luñ fi jaare ci loxoom la doon jaar ba tey jii ba muy ñëw fii diggante altine talaata ba alxamis ñu dajale quatre lu toll ci quatre cent quatre-vingt-deux mille tey jii ci julli jumaa ji ñu dajalewaat fi six cent soixante seize mille francs CFA léegi nii ci xadara bi ñu dajalewaat fi cent soixante cinq mille ba ñu boole lépp mu nekk un million deux cent soixante mille comme moom la Zac Mbao indi ne nañ ko nañ ko jàppale muy ci liggéey jumaa Seydi Hadji Malick du ma ko yendoo du ma ko fanaanoo moom it du ko yendoo du ko fanaanoo yabaloon nañ fi kilifa yi Fata yabal na ci ki nga xam ne ci loxoom lañ koy teg comme maa ngi koy tegaat ci loxo Serigne Mansour mu tegaat ko ci loxo Nooxin incha allah bu yeggee di ngeen gis jamaatu nu defal tableau yi ngeen gis muy ñuy defal wane ni jaar nañ fi Zac mbaaw jugal na lii ci liggéeyu jumaay Cheikh Sidi Hadji Malick bi kon nag bég nañu. Euh, kontaan nañu suñu xol seet na guy maa ngi sàkku teg sëñ Mansour nga ñaanal jigéen ñi wallahi jàmbaar lañu am na ci ñoo xam ne ñoo duggal seen bopp seen i table marché duggal seen bopp seen cité di laaj tey ku ñëw indi na lii maa ko laajal sama bopp cité bu ci ne fa nga ne dangaa laajal sa waa cité dajale ko indi kon ñoom ñëpp ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm di leen di ñaanal bu baax a baax yàlla yàlla doole guddal seen fan sant nañ ci suba tamit suñu maire Abdou Karim Sall ndax moom ni ma ko waxee woon dafa ni euh, woowu ma ko ndax bi ba nii may wax mi ngi France waaye ci Facebook bi rek la gisee vidéo bi démb mu mu mu woo ma ne ma gis naa liggéey bi mais dama bëgg a joxeel cent cinquante personne ku nekk mille francs cent cinquante personnes yoo xam ne am nañu yéene bi te mënuñu mu mu mu mu orange ma ne ma cent cinquante mille kon nag ñu ñaanal ko bu baax yàlla dolli ko taxaw ndax tariqa moo ko ñor nañu am zaawiya Cheikh Sidi Ahmed Tidiane fii ci commune bi te wax nañu ne fu ngeen gis place ma jënd ko lu mu laaj ma def ko kon ñu ngi ñaan nga ñaanal ñu ko baax ba yéenam yu yëpp yàlla mottali ko te yàlla dolli ko taxaw te yàlla dolli ko dëgëral noonu la ñu ñaanale taalibe Serigne Touba yi waaw moom laa déemu benn waaye ma ne ko yow de euh, taalibe Cheikh Ibra Fall nga waaye lii yaam ma njëkk a jox junni mu dugg si waaw waaw ba ci Mamadou Gueye bu lanaas yëkkat ci taraanga bëri def ko ci ah wax na soxnaam togg ay añ sànq ne ma yónneel ma ko sëriñ si fii ne ñu ñu ko ñoom ñëpp nga ñaanal leen yàlla yokku leen zag bi ñu baax rek fi ne kenn desul ba ci xale yi ndaw yi àndoon ak man liggéey bi ñu ñu tuddee seen bopp ndaw imam jiite yi ñu ngi sàkku nga ñaanal leen yàlla doon leen taxaw ndax mboolem liggéey bu ci ne ñoom lu ñu bëgg muy man ma dem tëdd ne la luñ ci war a dox lu ñu ci war a def lépp ñoom ñu def ko ba mat sëkk nga ñaanalal ñu leen nag yàlla yokk leen te yàlla taxu leen ba ci ñii nga xam ne ñoo yore animation yi ci wàllu tagg Seydina Mohamed ci daayira yi ci guddi aljuma ci mboolem luy ay programme fii ñoom ñëpp nga ñaanal leen yàlla yokku leen te yàlla doon leen taxaw man kàddu cant rek laa ci amoon ni ma la ko waxoon sànq bu ngeen xasee ba taxaw ñun seeni matériel lañu bu ngeen fi newul dañ fi ne di leen nekk seen surga di leen ci nekk nekkal leen seen tool waaye bu ngeen xasee ba ñëw nag amatuñ ci daalal luñ ciy wax ak luñ ciy def mënuñ lu dul topp seen gannaaw da damay wax ni dàll carax sax man bu ma ko gisoon mu jóge tiwaawoon danaa la fonk raamal la ngir tiwaawoon gi nga jóge waxuma doomu aadama nag ak ni ko yàlla terale ndax yéen rek lañu am yéen rek la ñu bëgg tiwaawoon rek la ñu am tiwaawoon rek la ñu bëgg sii Hadji Malick rek la ñu sopp Seydi Hadji Malick rek la ñu bëgg maa ngi gërëm nag ñii nga xam ni ñooy presse bi fi ne te ci xadara bi ba ci jumaa ji ba tey ñi ngi koy jàllale en direct sànq ba tey am na ñu may woo ñoo xam ne seetaan gi ñu seetaan jumaa ji ci ay bitim réew ci lañ yónnee seen i Wave ak Orange Money France Espagne fu ne am na ñoo xam ne ci seetaan gi ñu seetaan jumaa bi ci direct bi ci la ñu jàllale seen yoon yónnee ci Orange Money léegi la ma Baye Ismaïl di wax suñu benn njaboot bu nekk ca France yónnee ci ñaar fukki junne ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi nekk ca Espagne ñu ñëpp ñu ñaanal leen yàlla doole leen taxawu yàlla doole leen dëgër yàlla dolli leen jàppale Sodiprom 7 TV waa Kër Maodo Tivaouane 24 TV ak Habiba suñu soppe Habiba Habiba ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaye Aline Diakhaté suñu dëkkandoo la borom Zac ma TV moom it ñu ñaanal ko bu baax yal na yàlla dëgëral ko muy taaliba Cheikh na Cheikh Saad waaye lépp lu ñu def da koy ànd ak ñun ba mu jeex tàkk. nii mu def nii même burdu yi bis bu ne noonu lay def jënd connexion am di ko jàllale en direct ñëpp di ko seetaan kon yàlla na yàlla fay la te yàlla taxaw la loolu rek lañ la doon jotal sëñ bi comme mi ngi noonu nga jotalal ñu ko yegsil leen sëriñ bi daal di ñaan eh, bu ko defee ñun ñëpp ñu àndandoo yëkkati jotaay bi. ala nabi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 حسين الخي شكا على النبي وعليهم اجمعين سلام ربنا جاي